Votre bulletin d'information communale, pic Salam alaikum rahmatulah waaw man la Massamba Cissé man ONG Varankagère te ñu vitesse à ci santé Comme mi xam ONG moo pour jeexal benn formation ben tàggat ñu doon defal benn groupement. de femmes groupement bi nag dañ ko samp dans le cadre d'un projet projet bu bees boo xam ne dafa ñëw pour xeex xiibanu xale yi projet bi noonu lañ ko tuddee xeex xiibanu xale yi mu jur groupement bi nu mel loolu nag dafa fekk ñu am fu ñu jógee maanaam beneen projet lañu ñu woon

léegi bu ñu demee nag projet bi jeex ñu ne xool def évaluation xam ne activité boobu am na njeexital ci askan bi particulièrement ci xale yi léegi nañ tuggaat ko ci yeneen anam maanaam fexe ba nga xam ne projet bi na am njeexital non seulement ci xale yi mais ci yaay yi te pour ce faire nag kon il faut ñu dooleel yaay yooyu maanaam boole leen

def nañ ko ñetti fan tey lañ ko doon tëj daal loolu moo waral tey suñ daje waa kon comme ni ma ko waxee daanaka jàng taril la tey li xam ne moom la xale yi jigéen ñi jàng dañuy commencé di ko pratiquer maanaam taxawaay boobu ñoom taxaw ci xale yi ñoom ñoo koy def. ndax bàjjen gox ñoo def ñu leen profité de remercier à travers seen présidente de Lalia ak Mireille léegi nag yaay seen bopp ñooy ñëw trois fois par mois yi jox sur la base ci liñ ndax yaay autonomisation fexe comme samp nañ groupement bi nañ leen tàggat ceneen anam mais dañ leen jàppale ndax bénéficiaires yi juróom fukk lañ jël nañ juróom fukk jaay yoo xam ne nii tàggat nañ leen mais weer bu jot am na nañ leen jox bu ñu gën a autonome par rapport ak en tout cas seen lekk seen lekk yu mel noonu mais fexe nañ aussi nañ fexe bés bu groupement bi taxawee.

di wax donc projet bi daal dina am njeexital femmes mais indirectement de touché 350 personnes mon euh, personnes. non groupement moom ko parce que dañu xool ñi nga xam ne ñoo doon fréquenté espace bi di fendi seen i doom ñu leen jàppale ñooñu ñoom lañ jël en priorité da bi ñu leen ciblé juróom fukk lañ cinquante cinquante femmes lañ jël ñoom ñoo constitué GIE bi tuddee ko xeex xiiboon xale yi mais nag comme ni ma ko waxee ay bénéficiaires direct lañ donc projet bi dina am jeexital ci ay famille ay famille famille Tamika et dans a maintenant 350 personnes. Je me présente, je m'appelle Massamba Sissé, je suis le président de l'ONG j'ai. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis au niveau de l'espace de santé communautaire pour procéder à la clôture d'une formation qui était destinée à un groupe de femmes. Ce groupement, voilà, baptisé 3X en a c'est qui vont combattre la malnutrition des enfants maintenant pour faire la genèse de ce groupement on l'a mis sur pied dans la cadre d'un projet de sécurité alimentaire qui vient en fait pérenniser une activité qui se déroulait dans la cadre d'un projet antécédent, le projet de santé communautaire. Donc, après évaluation, on a vu que le suivi nutritionnel qui était destiné principalement aux enfants a un impact très positif auprès de ces cibles. Maintenant, on a voulu quand même la continuer, cette activité, mais sous un autre format. Le format, c'est le suivant. C'est regrouper, en fait, les mamans, les mères de famille qui amenaient au niveau de l'espace des enfants en groupement. Maintenant, essayez quand même de les former, ces femmes-là, en transformation de le local, pour qu'elles puissent elles-mêmes, en fait, prendre en charge cette activité. Mais mieux, ce GE aura pour objectif de les autonomiser en termes d'agir. Donc, on va faire que, une fois qu'elles auront bénéficié de cette formation, je dirais même d'une série de formations, parce y en a d'autres qu'on a planifiées, qu'elles puissent d'abord prendre en charge cette activité au nous sens, mais quand même faire d'autres activités qui pourront générer des revenus, qui pourront contribuer à leur autonomisation. Maintenant, ce qu'on veut dans le court terme, que dès l'instant qu'elles ont bénéficié de cette formation, qu'elles puissent trois fois par mois venir assurer cette activité au niveau de l'espace. Et ensuite, chaque mois, le projet va contribuer quand même à les appuyer en termes de kits alimentaires. Pour dire que elles seront 50 bénéficiaires à, en tout cas, avoir chaque mois un kit alimentaire. Et indirectement, cet appui alimentaire va bénéficier, en tout cas, à presque 350 personnes, si on tient compte qu'une famille sénégalaise quand même n'est pas m'a de la femme. Il y a les enfants, l'époux, etc. Donc, in fine, le projet va quand même bénéficier à 350 personnes durant 12 mois, un an. ngi tudd Mariama Thior le secrétaire général du GIE Je suis xeex xiiboonu de ah, comme GIE nous ñu ngi démarrer mais avant lolu depuis projet bi mu démarré ñu ngi doon def li di programme bi di euh, prévention de la malnutrition manam xeex xiiboonu xale yi commencé nañ ko depuis 2020 diko def daan ko def chaque 15 jours pour xalé donc euh, chaque 15 jours xalé dañ dan ñëw ñu préparer leen ñu lek ñu poser leen di leen saytu donc ci biir lolu projet bobu ñu dem ba weer bi passé la jeex les bu mu jeexee ci lañ yëkëti bi bii nag bu ñu ko yëkkatee ñu jël ñi nga xam ne ñooy yaay yi maanaam ñi doon indi xale seen doom yi ñoom lañ jël formé leen ci ñetti fan ci wàllum farine enrichie bi won leen naka la ñuy jëlee sunguf bi boole kook yeneen ferñeent ba mu gën a am njeexintal ci xale yi donc gën koo enrichir euh, ci loolu lañu nekkoon fan yi diggante àjjuma samedi ak dimanche ñu ci doon formé jigéen ñi ñu ànd benn spécialiste boo xam ne euh, moo ñu doon tàggat si ñetti fan yi ak ah, comme dañuy door a démarrer dañ nekkagum si formation bi nii mais teewul ñu ngi continuer suñu activité boobu noonu mais bii dañ koy door a démarrer si weer bi maanaam bi ko doon def dañ ko daan def ak bàjjenu gox yi mais instant yi comme ni ma la wax sànq dañ ko bëgg tàmbali ak yaay yi moo tax ñu commencé formation yi ñetti fan yi mais incha allah chaque dix jours. ñom ci ñi ñu formé dañuy ñëw sommes togal ci xalé yi ñu indi xalé yi ñu lek donc euh, loolu daal moo tax formation et Mariama Thiaw je suis le je suis le secrétaire général euh, du GIE euh xexi boonu en même temps je suis agent de santé dans la structure donc euh, on était en formation pendant ces trois jours vendredi, samedi, dimanche. Donc on formait les femmes sur la farine enrichie, donc pour euh, lutter contre la malnutrition c'est les enfants âgés de 6 à 59 mois. On va donner ça gratuitement pour les enfants, pour l'instant, parce que chaque 10 jours, on va préparer les repas donc pour ces enfants-là. En même temps, on va vendre ça, parce que les, les, les 10 jours, ne suffiront pas pour euh, nourrir ces enfants-là. Pour vous dire qu'il y aura une relève pour ça. Bon, pour l'instant, le point de vente, c'est ici. Donc, on l'a démarré ici. Donc, il y a des sachets de 250 mg euh, à 500 francs et euh, les sachets de 500 mg à 1000 francs.